ndax Socé dafa liggéey Koungheul liggéey département bi Macky Sall na xam ne Socé Diop fi ko taxawal li ko fi taxawal bariwul mbala Socé job ban sonn na sonn boo xam ne départemental bi lañ soxla Macky Sall teg ko ci loxo Socé Diop jot ku liggéey ku ne dangaa war a fayu na lu jar mu fayu kon président Macky Sall dañoo jàkkaarloog yow di la ñaan soo Socé Diop Dione mii nga jàppale ko jiital ko ci département bu Koungheul ndax ñun moom leen am moom leen gëm moom leen yaakaar. ku gis ñi tey xam na yaa moom musóor yi kon maa ngi jël bi di la ko jox nga joxal ma ko borom musóor yi ndax nag mbooloo mii ku ko mën a dajale di ay jigéeni kese ñu ñëw dajale ñëw na la yaa ñu doy. kuko mana am liggey nga ba de sosé mantai man tay duma jox ben message sosé djom nak li fi def ñepp gis nañ ko Macky Sall lay jakar lool Macky Sall yow lañu waxal ñun jigéen ñi département bu Kungel ñun ñi la bëgg nak ta bañuñ la heure bu buñ na Macky ñu jox taxaw gunge goor ñi bañ am liñ am tay dañ na ñun la fi tay ñun la ñaari junney mu bëgg ñu jox ñu ko nañu amul yére ñu ngi fii ci biir mbooloo mi ñaari junne jigen ku ko mën a dajale ci département jàmbaar nga Macky xool ñu ñaari bët te nga bàyyi ñu xel ndax ñun amuñ kenn kuñ soxla ku du soose jóg ndax nag lim fi def ci dëkk bi mi ngi fi ñun ñii ya taxaw di wax ana ñun ñëpp yóbbu nañu ak sa ñun defal nañu ak sa fii bépp groupement bu fi ñëw te yaa ngi façon nga sa financement ak say mbana moom doo nga làmm ci poosam yëkkati douze million financé ko jigéen ñi kon ñun tey ñun jigéen ñooñu ñoo soxla ñun jigéen ñooñu Macky Sall ñoo soxla nga investir ñoo investir Socé Diop duñ la wax nga investir ñu ñoo investir Socé Diop fas yéene ànd ak moom gunge ko ba mu dem fi mu bëgg a dem Macky Sall xool ñu. Je ressens une très grande fierté de l'ensemble des militants derrière Mme Sophie Diop-John, qui aujourd'hui ont décidé de l'investir au niveau du département de Kungel. Adja Sophie Diop-John est un leader hors pair, dont le charisme n'est plus à démontrer. Elle est d'une influence qui va s'agrandissant d'année en année sur toute la population. Cela est visible, témoin ce grand rassemblement blanc vert, symbole de paix, de pureté et d'abondance. Kungel, alors mes chères sœurs, les Amazones et les invités, vous qui investissez Madame Sauce et Diop John, restez soudés dans la cohésion, l'unité et la sérénité jusqu'à la victoire. Et ensemble, nous l'installerons à la mairie ou au conseil départemental. Je ne terminerai pas sans rappeler les multiples réalisations de notre leader, dans le département. Réalisation qui ne date pas d'aujourd'hui. Souvenez-vous que le CM Elage Ibrahimaba, ancien dispensaire, le centre de formation professionnelle relève de ses actes de bienfaisance et de générosité, sans limite. Elle a financé des groupements féminins. Je n'y reviendrai pas parce que euh, les autres oratrices en ont parlé. Il n'y a pas longtemps, circonstances obligent, dans le contexte de la COVID-19, 15 000 masques ont été distribués. La paroisse se voit dotée d'un panneau solaire à son grand bonheur. Des fournitures scolaires, des vivres, 2300 cartes de CMU pour les élèves. Premier député de l'APR, Mme Sosé Diop dion a construit des salles de classe et des murs de clôture. Je terminerai par vous faire souvenir de ces nombreux pèlerinages qu'elle a financés pour que les femmes aillent, sous la bénédiction de Dieu, saluer le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. yéen jigéen ñi yéen borom musori yi maa ngi leen di nuyu yéen di len gërëm di len sante di jéggalu nag ci tangay wi parce que si suba yop ci suba batay tey yéen fi taxaw li len ko jaral nag moy lenn. ku gis nen dig na nenen ngi te yena ko wax di len wax ne nek tay mom dama kontaan te da ngeen ma bet parce que xawma ma ne ngeen ma don doye bi ngeen di wax ne na len defar meeting parce que ku nek xamna madame john sosa job man duma xecio dara damay dor mu daanu rek ma yakale loolu nak maa ngi ko jëlee ci nga xamne ne suñu président de parti di son excellence Macky Sall mi nga xamne ne daf ne kuy dóora man kuy saga le président de la l'APR lu mu wax rek la rek nek kep kum investir dañ koy jàppale and ak mom xatchando dorando ba Benno Bokk yak par communes commune 9 commune yëpp gañe département bi waaye nag tey jigéen ñi dañ ma sas li ngeen ma sas mënuma koo bañ ñaari junne jigéen macha allah je touche du bois buñ taxawee ne la département bi di ko jël jàppale ko jàppale ñu mënuma dul nangu ko kon nag nangul naa leen tey li ngeen ma wax nangul naa leen ko dinañ xàccandoo doorandoo te lépp luñ ci mën dinañ ko def te dinaa leen wax li tax ma nangu ko